salaamaaleykum donc euh, man la Diop Lamine président wu euh, kuréelu euh, étudiants sénégalais yi nekk Bordeaux maa ngi tam bokk ci fédération étudiants sénégalais bu France yëpp ak euh, également comité bi nga xamante ni ñoom ñoo yor lépp lu wàll lu nekk ci wàllum recherche yu jaari saw suñu suñu rakk jooju nga xamante ni réer na fii euh, euh, am na ci ay ay fan ba léegi gisuñu ko donc nag gis nañ ay photo ak ay audio yoo xamante ni ñu ngi jàll comme quoi jaari saw feeñ na waaye nag ñu ngi wax ni loolu du amul parce que photo boobu noonu bi ñu ko dugalee yàgg na photo boobu elle a été prise ça fait longtemps également audio boobu noonu kooku ko wax wax ko ci langu pulaar du mbokkam du du mbokk jaari saw waa que ñoom jaari saw ba léegi ñu ngi ci seen situation de panique bi ñu nekk situation bi nga xamante ni sénégalais yëpp ci lañ nekk jàqare donc euh, loolu ñun ma bëggoon leeral ni euh, suñu comité amaguñu euh, am nañu sax ñu nga xamante ni ñoom ñoo ñuy waxal mais actuellement amaguñu information comme quoi jaari saw gis nañ ko bu amee rek incha allah ñu war a wax ci comité bi dinañu gën a jug jëf suñu communiqué. pour leeral sénégalais yi li nga xam te ne moom moo ci am waaw ñu muy muy wàllu muy comité bi ak fédération bi ak ñun niveau local Bordeaux amaguñu information buy wane ni jaari saw gis nañ ko donc maa ngi euh, wax sénégalais ñu yokku ñaani te euh, ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu mu wan ñu jaari saw leeral ñu ko ñi euh, ñiital ñu ko comme ni ñu koy waxee di di jégalu di ci kàddu yi bu baax a baax salaamaaleykum